am li nga wax am na solo Pape Djibril am na leneen li nga xamante ne tey jii euh, moo lëmbee Sénégal mooy wàllu viol. Hmm. ñu ngi të xale yi nañ ma baal ci kàddu gi. Hmm. ay góor ak ay euh, nee nañu sax ñi nga xam ne ñoom dañ leen la euh, daara si daara yi la ñu nekk war a jàngale mm-hmm. jàpp nañ leen sax am na ku ñu si jàpp mm-hmm. yóbbu ko ak mm-hmm. keneen koo xam ne ñoom ñaar itam yóbbu nañ leen ci ci kaso bi loolu nee nañu yàgg na sax si askan wi viol ak pédophilie mais dafa mel ni dafa gën a tar jamono yi euh, te dafa mel ni état bi affaire bi def ci amu ci xeex xeexe bu ñu ko war a xeex dafa mel ni dafa des lan moo xam nga li ma gëm mooy il faut que régulation am il faut que am ñuy régenter am na ci loo xam des fois on demande trop à l'État parce que aussi euh, am na ci loo xamante ni souvent surtout suñu état yi nga xamante ni li ñuy gën a nangu ci ñoom mooy seen ñàkk a matal. Mm-hmm. seen matadi seen ñàkk a mat ci lépp loo xamante ni war na leen. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni dañ leen koy nangul. Mm-hmm. waaw mooy seen incapacité souvent ay aveu d'impuissance sax dafay am. léegi su boobaa dafa am yeneen canaux yoo xamante ni moom la ñuy war a utiliser xam nga tey ji pédophilie bi ñuy wax nii te mu feeñ ci bon bi mu feeñee Sacré-Cœur feeñ fële ci Wakaam ak yeneen yi sax xam nañ ne kon finalement les daara n'ont pas le monopole c'était très bien ouais. mais avant ñoom gis nañ ne église li ko gënoon a secouer à un moment donné c'était ça c'était la pédophilie ouais. donc cela veut dire quoi cela veut dire que ay fait de société la yoo xamante ni euh, les acteurs qui sont directement concernés et qui peuvent régler définitivement ce problème là mm-hmm. dañu ci war a jóg bu baax a baax a baax mooy acteurs yi ñëpp ci lañ bokk mooy le ñi nga xamante ni tey jii ñoom la ñu wax ne ñoo ŋànk diine ji mm-hmm. par exemple te dañ leen ci war a dégg ci yu mel nii su amee parce que c'est important aussi parce que li may wax souvent ki nga ne moo ŋànk sa diine nga am problème ci sa diine dégg ko mu wax bon finalement ça peut tu peux te poser des questions yaa ngi dégg donc ñi nga xamante ni aussi moom mooy état mais il faut que l'état en toute intelligence ak ñooñu nga xamante ni aussi ay kilifa lañ muy kilifa diine yi ñu mën a ci waxtaanee teg ko sur la table et souvent je pense que ne duñu ko def ni nga xamante ni noonu lañ ko war a defee euh, am na ci loo xamante ni aussi euh, je pense que institution de base bi nga xamante ni moom mooy la famille mhm. dafa am lu fa xew mhm. boo gisee les autres nations aujourd'hui même développées mhm. dañuy xeex pour que la famille redevienne une réalité ñun on la disloque de plus en plus souvent ñu bari ñuy yóbbu ci daara yi dañuy daw responsabilité lu ci bari surtout yenn daara yi nga jël sa doom yóbbu ko yow joxewoo fa xaalis xamoo lan nan lay def bay lekk xamoo nan la def ba naan xamoo nan lay def ba solire mhm. yow defoo dara ci loolu daw nga responsabilité mhm. jur nga rek sànni waaye pare nga ci <laughs> parce que gis nga koo xamante ni xëy na kooku it. waaw mais su koy yelwaan loo doo ko ko tere. absolument absolument suñ ko santee leneen tamit doo ko ko tere. Mm-hmm. parce que yow yaa assumé wul sa responsabilité. mais je vous assure. Binta Diallo. Mm-hmm. dans ce pays là li fi nekk ci ay daara. yoo xamante ni li ñuy génn ci ay xale. Mm-hmm. jàng bi ñuy def ni mu bare. sacrifice yi ñuy def ni mu bare. pour que jàngal ay nit di yar ay génération de Sénégalais. kenn xamul ni mu toll. loolu c'est des cas aujourd'hui qu'il faut euh, constater. et indi ñëwu ci. Mhm. mais j'ai pas encore vu un monde parfait. waaw ouais. ouais, maintenant avec euh, benn benn benn benn. effet amplificateur bi nga xamante ni am nañ ko aujourd'hui muy muy les médias c'est vrai que dina ko yóbbu foo xamante tu as mm-hmm. l'impression que lii moom mooy réalité bi mm-hmm. partout alors que je suis désolé <laughs> tey jii on a des poches de résistance au Sénégal ci wàllu jàng ak jàngale mm-hmm. ba nga xamante ni continuer di ko def en toute orthodoxie ah. te ñoo ngi xeex aussi avec leurs moyens ah pour er, pour être au rendez-vous ci besoins élémentaires yi nga xamante ren mi ngi soog a egg si Mame Matar Gueye mi ngi lay nuyu. waaw d'abord damay jégalu mboolem téléspectateurs yi. waaw ndax dama woon ci seen yeneen naataango. waaw euh, ak circulation bi. bi dafa métti moom waaye malgré tout. taal ñu xaw a euh, euh, tàmbali waxtaan wi war kon rek. gaaw gaaw waaw léegi day mënuma lu dul rafetlu rek thème bi. ngeen jël mhm. ndax mbir mi dafa egg foo xam ne. Mhm. président Macky Sall kott mënu koo régler. Mhm. parce que ku nekk wàññi nga ci sa baaraam. ñeenti yoon a ngi lubbi homosexuel extérieur yi di ko song. bi ci jëkk c'était le 27 juin Obama. ñu fii la ñëwoon. ñaareel ba sa consoeur mu di Audrey Pulvar. ci émission boobu euh, le 25 octobre 2015. ñu defee ne jeex na sommet de la francophonie bu euh, Madagascar. sa confrère bu TV5 di Franck Simonet songaat ko ñu defe ne jeex na bërka démb. mu di le premier ministre canadien daal di ñëw dàbbaliwaat ko alors un état ka nga xam ne c'est la voie la plus autorisée nee na légaliser wu ma ko mais il n'empêche que ñoom ils ne s'avouent toujours pas vaincus li ko waral c'est parce que lobby ils ont le sentiment qu'il y a toujours de l'espoir Absolument. pour que lii dal Centrafrique dal ñu ndax daganal nañ fa ngóor jigéen pour que li dal euh, île Maurice dal ñu ndax daganal nañ fa ngóor jigéen lii dal Gabon dal ñu parce que daganal nañ fa ngóor jigéen parce ils ont été lâchés par leur peuple bi lobby yi demee ni demee ba seetlu ne que c'est le chef d'État seul qui porte ce combat ñu daal di ko wër ndomb c'est le cas de François Bozizé couper financement yi couper subvention yi mu daal di salit légaliser góor jigéen yàlla bi dara teewul jaxase dëkk ba ñu coup taa ko mu daanu loolu bëgguñu mu am fii moo tax nañu foog waxi politique teg fee mhm. waxuma ne na nit ñi transhumé dem APR wala Benno Bokk Yaakaar dal na sa président bu yeboo tontu ko en lui donnant du miel. Mhm. ou bien confiture. Mhm. li ñu amal solo mooy gàntal na ko. Ah. et bien que gàntal na ko il revient toujours à la charge. Mhm. loolu li ko waral nag y a le silence complice de la société sénégalaise. moo tax imam Massamba dina demander à tous ses collègues imam ajjuma bii di ñëw ñu def ko xutba pour wane ne lii Macky Sall la wax son refus de légaliser l'homosexualité du waxam c'est les 98 pour cent de croyants de ñu ngi ñaan tamit homme politique yi nañu wax ndax kenn déggagu leen a l'exception près de Malick Gakou moom mu may woo régulièrement ne Jamra je suis de tout cœur avec vous dans ce combat kon nag ñoom ñi bëgg yore réew mi ëllëg il faut que ñu xam seen position par rapport à ça alors mais dans tout ça nag il faut que l'État soit cohérent ndax mënu nekk da ngay am article 319 bi rëbb euh, les unions contre nature mënoo nekk da ngay am un chef de l'État qui refuse systématiquement les propositions indécentes de de, de Bertrand Delanoë le maire homosexuel de Paris de, de euh, Justin Trudeau le l'avocat attitré des défilés LGBT parce que kenn jowu ko moom mooy participer ci défilé gay pride yi mooy défilé goo jigéen ñi alors mënuloo wax loolu ba ñëpp a tàccu ce même état sénégalais jaar ci suuf di jël ay récépissé di ko jox à 16 associations d'homosexuels et de lesbiennes kon nag pour le président Macky Sall pour qu'il soit cohérent pour que lii mu def sénégalais yi gën ko ci jàppale na xotti récépissé yi mise de l'intérieur jox góor jigéen ñi voilà loolu yaakaar nañ ne bu ko président defee dina neex a jàppale jébal ngeen ko ministre de l'intérieur waa Jamra waaw ministre de l'intérieur recevoir oon na ma ah. le novembre c'était pour défier ñii wax naan Jamra yoruñu dara dañuy coow rek yëkkati naa jox ko ba pare jox ko ci ay échantillon yoo xam ne en face de ses en présence de ses collaborateurs mm-hmm. particulièrement Ibrahima a le secrétaire général de la présidence du ministère nee naa ko dama lay jox ñetti échantillon rek li ci des da nga may jox sa email ma yónnee la toute la documentation des 16 associations d'homosexuels reconnues par l'État du Sénégal jox naa ko si ñetti échantillon rek muy AIDS ñoo ci ëpp taalibe 635 membres góor jigéen numéro de récépissé 15 444 délivré en 2012 par qui par la DAGT la direction de l'administration générale du territoire de qui du ministère de l'Intérieur jox naa ko dégg nga prudence bi nga xam ne Jamil Bangoura moo ko jiite numéro de récépissé date de la délivrance par qui le ministère de l'intérieur jox naa ko góor jigéen yu jigéen ñi mu di leen lesbienne dirigé par Ndeye Kébé ñu di ko wax sourire de femme numéro de récépissé nangam délivrance telle date par qui le ministère de l'intérieur ñuy 16. kon loolu réalité la du ay fiction. boole naa sax kon kay c'est paradoxal bu fekkee dañ ne euh, ñoom góor jigéen kenn du leen jox fii droit ba pare di di protéger. wala jox ay récépissé du yoon loolu la mooy ban alors mu ne ma nag léegi bon récépissé yi xel demul ab kuréel daal di ñëw présenté wu ne góor jigéen la ñu jox ñu récépissé. Mhm. ma ne waaw xel demu ci waaye fi ñu leen naxee yéen état du Sénégal. kuy déposer demande de récépissé pour taxawal kuréel moo xam da nga bëgg a créer syndicat wala parti politique wala leneen ñetti documents yi rek lañ lay laaj statut Euh, procès verbal de d'assemblée générale constitutive. Mm-hmm. ak benn document boo xam ne ci ngay décliner sa objet social. ñoom fa ñu naxee état du Sénégal bu ñuy décliner seen objet social du ñu ne ay jugóor jigéen lañ déedéet. Mm-hmm. dañ naan waaw dañu créer suñu kuréel bi pour dimbali les malades du sida. dañ ko dimbali pour euh, créer euh, aider les veuves et les orphelins. Mm-hmm. wala boog les personnes du troisième âge qui sont souvent confrontées à des problèmes de santé. xam nga un ministre de l'intérieur quel qu'il soit. boo indee des objectifs ci noble les yeux fermés mu jox la récépissé. mu ne waa mais ñun balaa ñu leen jox récépissé. alors dañuy def enquête de moralité ma ne ko d'accord monsieur le ministre mais yéen vous faites une enquête de moralité a priori waaye boo leen xasee ba jox nit ki récépissé li manqué Sénégal te foofu la góor jigéen yi jaar ba nax leen ba am récépissé mooy y a pas d'enquête à c'est-à-dire war ngeen vérifier ba xam la ñu décliné woon ba ñu nax leen ba ba ngeen ba ñu am récépissé mm-hmm. est-ce que dëppoo na avec les activités qu'il mène réellement su le terrain loolu amul Sénégal waaye yooyu la mm-hmm. léegi état bi identifié na leen mm-hmm. état bi wax na Obama ne ko du ma daganal góor jigéen président de la république wax na Justin Trudeau ne ko du ma daganal ngóor jigéen c'est bien waaye récépissé yi lan moo fi seen rôle na ko dindi sànni ko xotti ko ñu teg dëkk bi ci ay charte yu baax gannaaw euh, publicité yi ñu dellu si waat ci plateau